maa ngi leen di fay bu baax. maa yaa ngi am maa ngi sant yàlla bu baax. tey sa digg dëkk lañ la fekk. Gaye Ndiaye. kii di tëgg kan la. kooku la ñuy wax baabu Sène sama jigéen moo ko jur papam tudde ma ko ko ca kër ga ba waxtu wi laytu ndong bu Sadio ga organiser làmb sargal Babou Ngom mbayang war koo woy kii nga xamante ne man maa ko yar war ko tëgg monsieur le maire dal ma defal mise un million pour mbër yi tey moom am na satisfaction totale sama xol dafa sedd nag ba mënu maa wax waaye yal nañu ko yàlla jàppale ba ñu commencé ko ci bisimilah rahmaani rahim jeexal ci alhamdulilah rabil alamin looy wax monsieur nag dañoo doon ñoo xam ne ñun ñoo gone wandoo doon ànd bu yàgg ba léegi ma koy gërëm di ko sant rek di la wax ne li des yëpp dama bëgg bu ñu yeggee làmb ja ma waxtaan ak yéen sama diggante ak monsieur le maire. mais xale yi tëgg xale yi tëgg koo wax mu ne jàngal tëgg. sama doom la maa ko yore sama kër ba nii mu toll nii maa ko jàngal tëgg maa ko yore ba wutal ko jabar dugalal ko sama biir kër. bu paree ci tëgg mi nii sama kër lay ñibbi fekki soxnaam. maa ngi ci jàmm alhamdulilah. kii la. kii mooy monsieur le premier magistrat de Gandiaye Pape Songe di suma xarit di suma wóllëre Demba bu EDK boole ñu depuis boobu léegi ñuy sàmm kóllëre ji ma dend ak Chérif mi nga xam ne kenn la ci moom tey mu am bésu làmb ñu tuddee ko drapeau. ñu ñëw ci dëkk bu nga xam ne dëkku séeréer dëkku cosaan la waaye dëkk la bu nga xam ne buñ ne mooy dëkku Babou Ngom loolu rek doy na ndax Babou ñun ñëpp xam nañ ko ci làmb muy l'homme à la ñi ko donn tey mu déewuñu puso bi mu réer boo déggee woy yi jolli nga dégg euh, gaa yi li ñu tëgg ak rythme séeréer bi da xam ne fii la làmb buujoo fii la làmb buujoo fii la làmb buujoo ndaxte fii euh, maanaam làmb dañu koy dund dafa nekk aada nekk cosaan nekk lu nga xam ne daf fi yàgg cay maam ba ci maamaat euh, mu nekk tamit dëkk bu nga xam ne boo déggee ñi way nga xam ne li ñuy way xam nañ ko bu baax waaye boo déggee ñiy tëgg nga xam ne euh, li baabu ngom def ba ñun ñëpp ñu ñu ñu ñu ñu teg ci suñu bët tey doomam Maodo ak xale yi mujjee poussé bi momo mujjee wuñu poussé bi mu réer donc bu ñu ñëwee dëkku baabu ñëw dëkku monsieur le maire le premier magistrat euh, Pape Songué dañuy am mbégte lool parce que nit bala nga ko xam nga fekk ko ci biir mbokkam nga fekk ko fi mu dëkk ñun xam nañu gànjaay démb xam nañu gànjaay tey romb nañ fi démb romb nañ fi tey xam nañu lu fi soppeeku ak lu fi soppeekuwul donc je pense que depuis qu'il est à la tête de cette commune li ko soxal mooy li nga xam ne mooy slogan mooy li nga xam ne mooy bëgg-bëggam que Gandiaye soit comme Shanghai waaw am na solo ah, loolu neex na trop kon ñu ngi nuyu waa Gandiaye yëpp di nuyu monsieur le maire Pape Songe di nuyu képp ko nga xam ne yaa fi ne di ñaanal Babou Ngom gudd fan ak wér yaram mais démb dama la dégg tamit nga wax ci ku mag koo xam ne icône làmb la muy yi Jóob ni wax ji nga wax ci moom demb Sénégalais yi dañ koo rëylu maanaam dafa rëy ñu bëri rafetlu ko waaw xam nga Yaxya jëfam moo rëy ndaxte euh, li mu def ci làmb comme je l'ai dit dafa nekk ku nga xam ne icône la te nit bu fekkee ni da nga def lu kenn deful euh, ci réew mu mel ni réewum Sénégal dañu war di la delloo njukkal ci moment bi nga xam ne yaa ngi fi yaa ngi dund mais Sénégal dañu tàmm di delloo nit euh, hommage à titre posthume maanaam bàyyi ba nit ki génn àdduna ñu soog rendre hommage mais Yékini dafa nekk ku nga xam ne c'est une icône de par son parcours parce que tey kenn mënul wax lambu Sénégal wala lamb Afrique te tuddloo Yaxya Diop Yékini mooy mbër mi nga xam ne moo def 15 ans de règne sans partage 15 ans d'invincibilité mooy mbër mi nga xam ne moom jël na euh, drapeau CEDEAO dem na ba ñamee toj ñame daan seen champion ba ba ñu ka nga xam ne moo yoroon sabre d'or ba mooy roi ca Niger te ku nekk xam na Niger lamb fi ñu ko def yëkki ni moo ko fekk foofu daan ko individuel daan ko équipe te laataa mu koy daan ba ñu demee ba xam ni moom moo ko man te bu ko daanee catastrophe am dañu fekk ni néegam di ko corrompre ni ko bàyyil suñu waa ji daan la ñu jox la xaalis mun leen dee moom moo ko gënal parce que séeréer du trahir on est séeréer et on est de l'être mu défendre mu défendre crânement les chances du Sénégal ba keroog ñoom ñoo gagné Niger à plate couture fédération ba tas ministère ba taj crise bu metti am fa Yékini dem Johannesburg aux Jeux africains représenté fa Sénégal def fa jalore kon kooku tey su demee ba bàyyi làmb def reconversion di wan xale yi ni boo jegee ci làmb waruloo toog di tàllal loxo waruloo toog ñu lay yërëm li nga am ci làmb da nga ko war a investir mu préparer sa reconversion nekk tey jii chef d'entreprise wan na xale yi yoon bi donc kooku dañ ko war a jël comme on modèle bu ñuy wan à la jeunesse euh, sénégalaise de Bassoul à Joal de Joal à à Dakar de dakaar à ñame de Niamey à Johannesburg, Yahya Diop Yekini aura montré qu'il est le meilleur parmi les meilleurs, il est le roi des rois, il est le king des kings. il est king des kings macha am na solo mais tey tamit dañuy ñëw si autorité locale bi dañ ciy dikkaat sax. parce que defe naa maire yi dañuy soxla ci commune yi saaru maire yu nga xam ne dañuy sox jege seen ay population par rapport ak seen ay soxla yaa ko wax nga ne daan nga fi romb démb di fi romb tey diggante bi nga fi romb kii xam nga ko yaakaar naa ne ci gis-gis wala loo ñu mën a wax ci moom loo xam ne est-ce que nekk na maire xam ne. ci sa gis-gis wala li nga dund ak moom maire bu jógee population la wala euh, yow loo gis ci moom. saa yoo ko gisee muy dem xamal ni benn itte rek la am mooy gànjaay ku nekk fa nga dëkk ngay tiitaroo moom gànjaay mooy shanghayam jàngaay moo euh, gànjaay mooy new yorkam gànjaay mooy pareem parce que il faut être fier de ses origines te tey dañu ko tànn parmi d'autres fils de Gandiaye ni ko yaanu doy jiitanu kon am na sas mais li tax ñu jiital ko aussi moom moo ko wane ji ko askan bi ba ñu wóolu ko dénk ko maire bi muy jege askan bi ci seeni soxla bu dee ngénte moo ci ay bu dee dëj moo ci ay bu dee ay jàng du tànkam lu kenn ubul bu ubul buntu këram tëjul téléphone am donc loolu daf ca am solo parce que un maire un administrateur doit être proche de ses administrés bu ñu yeewu di la gis bu ñu amee soxla gis la wax ju neex sax sarax la maire mënta régler problème yëpp amul benn maire bu ko mën rawatina nga nekk le maire d'une petite commune qui n'a pas beaucoup de ressources tey génie créateur am ak les relations yi nga xam ne am na ko au niveau national et au niveau international grace à la coopération décentralisée moo tax muy am li muy am di ko indi Gandiaye kon buñ ko jàppalee Gandiaye sera comme Shanghai donc nit la bu nga xam ne boo gisee kër gi mu tabax Gandiaye bu ko neexoon tabax kër gu ko kër gu mel ni pale toog fële bu ko neexee benn samedi wala benn dimanche mu ñëw wala toog ba élection jub si mu ñëw ni woteel leen ma mais bu ko defee ëppul waa Gandiaye fu la ëpp leen fayda c'est parce que daf leen di liggéeyal jege leen ñu gis ni Gandiaye est en train de se transformer ñu ne qui est derrière cette transformation radicale de la commune de Gandiaye ñu ni c'est son premier magistrat Pape songe c'est un homme de valeur c'est un homme de principe c'est un homme humble mais également il a une vision prospective pour Gandiaye te bu ñu ko jàppale son seul souci c'est le développement endogène de la localité de Gandiaye kon nañu ko jàppale mu jàppale leen te loolu moom moo am solo ñu koy encourager di ko féliciter nekk maire yombul il faut nit ñi aussi di comprendre que ni le maire ne peut pas régler tous les problèmes c'est pas possible yàlla sax mënul régler problème yëpp waxuma laak nag un maire bu ñu jiital ci commune bu nga xam ne bariwul ay ressources nañu koy comprendre xam ne lu mu mën mi ngi koy def lu mu mënul yi tamit mi ngi koy wuti te bu mébétam sottee képp ku dëkk Gandiaye di nga gis sa bopp ci li nga xam ne mi ngi koy borom TFM la ñuy wax parce que comme li ma wax rek ñun ay professionnels lañu de la communication euh, di chercher toujours l'excellence nous sommes toujours en quête de l'excellence man je cherche toujours plus et plus fort donc toujours loolu mooy sama credo te ku nekk xam na ni li ma am yàlla moo ko def ci man ma nangu ko lool yi tamit te fu ma jëm dama koy yóbbaale donc je ne maanaam du ma nekk ci kenn ni ko yàlla ak yow la ndaxte ba jàng jotee dama jàngi ba liggéey jotee dama liggéey ba askan bi teg ci seen bët donc du ma ku nga xam ne dama naan kaay leen jël si ma nit ñee may soxla jël si ma buñ ma soxlaa jël si ma ma waxtaan lu nga xam ne sama intérêt la ak suma njëriñ ma dem ci ak lu nekk njëriñu Sénégal dem bi ma dem TFM dama fa dem pour jàppale euh, Youssou nduur ci projet bi mu am gën a fës gën a am visibilité gën a liggéeyal askanu Sénégal ñàkk nañ la Gaye Ndiaye mais defe naa jëm da nga jëm ci combat bu diis combat boo xam ne corona bi moo taxoon daaw amul muy sa diggante Gamou Gueye foo ci toll. waaw sant yàlla rek comme bëggoon nañ ko bu yàgg yàlla dogal na ko la 6 yàlla mi dara tawul yàlla na dogal le 6 rek bis bi ñëw ma daan Gamou Gueye parce que loolu rek laa gëm. est ce que soq pare na fi mu nekk nii. non déggoo li ma la lamb ju préparé deux ans su ma parewul ba heure bi ñu laaj ma yal na yàlla def ma bëre Gamou Gueye la siis te si yàlla dinaa ko daan xooli leneen. di ko daan. dinaa ko daan bu neexee yàlla dem xooli leneen fii ma nekk du sama place ci làmb te mbéjum kanam borom ma koy fajal boppam si kàttanu yàlla la siis naa wane jom wane ngor wane fula wan leen ni fii du sama place ci làmb damay jël li ma moom dem sama yoon. am na ñu bëri dañuy tiit sa diggante ak moom ci côté bëre bi. ci côté bëre non man bu leen neexee ñu tiit sama diggante Gamou Gueye ci côté yëpp. mais man li ne ci man xam naa ko te bu bis ba bu arbitre poussé loxoom damay dox ñëw jël li ma moom dem ñibbi. damay dox ci ko damay dox dem jàpp gàmmu gay daan ko dem xool leneen ci kàttanu yàlla. waa kon day attaqué ko da nga koy attaqué ko ne ko gañe ko. li mooy man Sokh maa ko wax su arbitre poussé sama diggante gàmmu gay nii laay def wuti ko moo xam day taxaw moo xam du taxaw moo xam day ñëw wala ñëwul. dajeeg moom bëreeg moom daan ko dem sama yoon ci kàttanu yàlla. lii nga nar. si kàttanu yàlla. dinaa bëreeg Gamou Gueye ak manière. maa leen ko wax incha allah. Pikine day boo xoolee nee nañ bëri yu bëri yu bëri Pikine grand combat dañ ko ñàkk. loolu la yàlla dogal. budul arène nationale bëri nañ yeneen stade daanu. comprendre nga. arène nationale ba. ba mu ibbee nga ma dëkk micro. man la nekkul daa nekk Pikine rek force mbëru Pikine daf fee war a bëre daan. ku liggéeyul luy maye ndam ci arène nationale doo ko fa am. yàlla mooy maye ndam yàlla na yàlla defal ndam ci kaw gàmmu gay jaajëf jërëjëf jërëjëf malik eh, maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci li ngeen jóge dakaar ñëw seet si ma fi bugg bokk ak man bis bi muy muy bis bu rëy di bis bu rëy ci man di bis bu rëy ci Gandiaye ndax la tax la ko sababal mooy dañuy sargal tey koo xam ne yóbbu na turu Gandiaye fu ne ci Sénégal koo xam ne lamb bi ñuy def tey muy suñu cosaan fii si Gandiaye suñu cosaan fii ci Sénégal baabu def na ci lu ne muy ambassadeur ambassadeur de la commune de Gandiaye ambassadeur de la culture sérère ku mel noonu ku ko am sa dëkk boo ko tiitaroowul xamul looy tiitarooti te Malick dafa wax léegi lu am solo nit ki boo koy sargal sargal ko ci kanamam muy fekkee njabootam fekkee ay mbokkam fekkee ay xaritam fekkee ndax baabu mii kat il nous a procuré beaucoup de satisfaction képp ak lu làmb kontaan nga ndax ci baabu li doon def tey bu toogee ba ndax loo gis lu ne yàlla lu mu mayee dina rocci ay doomam nekk fii ñu nekk fii aussi nekk ay morom màggandoo ci dëkk bi tey jii yàlla teg ñu ci boppu commune bi lépp lu ñuy def dañ ko ci sargal et c'est un monument de la culture sérère il sera citoyen d'honneur de Gandiaye duñ ko mës a fàtte mu baabu lii nag première édition la tàmbali la moo tax sax defuñ melul ni mu war a mel waaye incha allah bu ñu fi yàlla bàyyee déwén bu ñu koy def fii Gandiaye dina toj ndax baabu moo ni toll baabu moo ni toll te dinañ ko sargal dinañ ko maggal yàlla na ko yàlla may fan yu gudd yu mu yàgg fii yàgg di ñu bégal moom ak i doomam moom ak njabootam may nuyuwaale aussi yande ko du seen ndax moom tamit icône la mondial doo ay doomam a ngi nii ay sëtam a ngi nii pour te dire que Gandiaye c'est ville de culture seen une terre de culture seen une terre de tradition ku ja xamul fi nga jógee doo xam fi nga jëm ku jàppul sa cosaan xamoo ci li nga jëm donc loolu sookul la si ñun ñu jàpp suñu cosaan ñu ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ko cosaan bi fii bu loolu weesoo dëkk bi yàlla daf ñu ko dënk dara xëyul sotti lu baax yombul bañ fi ñëwee ba léegi ñu ngi góor góor dañuy fooyee sax suñu slogan gànjaay comme Shanghai ngir roy lu baax bëgg lu baax bëggu gànjaay qui soit au firmament des grandes villes de ce pays la te incha allah suñu am yàlla maye kattan fii ak ay at yu tuuti lu waay bëgg di nga ko wutsee fii. nous voulons avoir une ville durable une ville résiliente une ville bienveillante une ville où les gens auront le plaisir de vivre parce que on peut habiter une ville et ne pas vivre la ville On peut habiter une ville et ne pas vivre la ville. Mais on veut que les gens qui habitent là, cette ville-là vivent la ville, culturellement, socialement, économiquement. On a énormément de projets. On a en vue une zone industrielle qui va avoir plusieurs milliers d'emplois. Des investissements de plusieurs milliards. Si on parle de les grandes réalisations ont toujours commencé par de grands rêves. nous sommes dans le rêve et bientôt nous serons dans la réalité incha allah lii laa leen di ñamal li du fi yëpp xajul si nag bi xajul si cin bi dina leen wax ne kontaan naa baabu sama xarit la maa ngi nuyu aussi ñëpp ñi may jàppale ci dëkk bi suma bureau municipal suma conseil municipal samay xarit samay àndandoo mes amis d'enfance ñoom ñëpp ñu ngi fi di nuyu particulièrement aussi shérif mi nga xam ne ñëwee na jógee na Dakar jàpp ma damay wax ne ku ay loxo nu la luñ la waay xam nga ko moom ni ma téye xam naa ko defalu ma ko lu ko nit ñi defalul au contraire du ma ko defal dara ndax coono rek laa ko indil waaye fu ma jógee mu jóg su ma jógul sax mu jóg kon Chérif maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di ñuy jigéen ñi ànd ak man ñëwaguñ ñii ñu ngi ca waañ ba ñu ngi ca kër yi di préparer pour que làmb gi mun a neex de toute façon daal li ñu bëgg mooy première première édition bi euh, yàlla na yàlla na yàlla na jàll ci jàmm ñu feete ko Euh, man du sama mbir mbiru waa Gandiaye la mbiru baabu la du sama mbir de mbiru waa Gandiaye la mbiru baabu la damay puus rek waaye nag euh, bu ñu yegee ba sa cappaandaw ba euh, bugg nañu nit ñi xam ne dëkk day am ay référence dëkk day am ay référence bu ñu xeeb mukk suñu référence yi bu ñu ne Yandé Codou Sène qui a fait le du monde fii la dëkk fii la mujjee nañ ko jàpp bu ñu ne Babou ngoom ki a fait la fierté les grands moments de la lutte sénégalaise dañ ko jàpp kenn du xeeb sa patrimoine parce que la culture aussi est une industrie boo xam ne c'est porteur porteuse d'emploi donc euh, kontaan naa trop di nuyu waa Gandiaye yëpp di leen jox rendez-vous léegi ca ca ca arène ba ngir ñu sargal kenn ci doom yi nga xam ne mooy doom bu neex a jur la bu neex a tiitaroo la muy Babou ngoom maa ngi leen di sant di leen gërëm di remercier aussi le promoteur Leyti donc mi nga xam ne moo ma fekk si ne damay sargal Babou Ngom ma ne bu fekkee da ngay sargal Babou Ngom su ma loxo du ca génn nañ ànd def ko premier li ma wax nag kii première édition la bugg nañ di ko fêter tant qu'il sera en vie on va le fêter jërë ngeen jëf waaw mel ni remise de drapeau moo nekk noonu remise de drapeau sargal Babou Ngom bi la 16 mai la 2021 ci Gaye Ndiaye ak Pape Songe le maire muy lu am solo Leyti organisé ko Leyti kon am na solo loolu